salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu euh, di xool nu ngeen def ci dimanche bi bi euh, bëggoon a jël juste quelques minutes waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre liggéey bi ñuy def bu ñuy jéem engagement bi ñuy jéem pour suñu réew engagement bi nag bi ñu koy tàmbali man dama woote ne we not me te we naat me boo ko déggee mooy ñun la du man lu tax ma ma ma tàmbalee ko ne ñun du man c'est parce que dafa am lu ma seetlu ñun ci suñu réew te li may wax ñun ñëpp xam nañ ko ci famille yi ci tàmbali kër yi la tàmbalee ndax ñun maanaam boo ñëwee ci kër souvent kër yu bari benn nit mooy liggéey ñëpp wéeru ko benn nit mooy joxe dépense benn nit mooy fay luyaas benn nit mooy mooy mooy fay électricité courant mooy fay ndox bu ngénte amee mooy ngénte dégg nga ma bu amee ku feebar moom la ñuy woo cest à xorom sax pour jënd ko ci kër gi moom la ñu war a woo bu fekkee jigéen moo nekk ci kër gi mooy togg mooy dem marché mooy raxas waaw da dem ci kër yu bari suñu réew mi parce que réew mi boo ko bëggee sopp il faut ñu tàmbale ci kër yi nga dem ci kër yu bari yoo xam te ne da nga fay fekk ay jeunes yoo xam ne ñu ngi ci réew mi jàng nañ ba pare wala jàng ñu ngi ut liggéey amaguñ liggéey d'accord on peut comprendre parfois nga nekk ci chômage chômage di ut liggéey mais nga nekk ci kër yoo amoon benn participation boo indi si biir bi cest à bu nit ki joxee dépense yow joxoo dépense parce que amagoo loo joxe dépense amul problème mais au moins buñ toogee ba pare yow da nga war a nettoyer muy sa participation boo mënta nettoyer yow nga jëm jëndi xorom xorom xam xorom seerut xorom juróomi dërëm sax nga xam ne yow yaa féetoo xorom si bu xorom jeexee duñ xalaat ku dul yow mën njaay wala faatu moom moo yore xoromu kër gi amul liggéey mais mooy mooy joxe joxe xorom wala boo joxewoo xorom sax bu maire yi toogee ba pare ñu ne yow yaay nettoyer kër gi parce que tubaab ñoom boo amee quatorze ans quinze ans dañuy fexe nga yow balaa ma ko mat sax neuf ans dix ans yow nga commencé di nettoyer yow loolu mooy sa participation boo commencé liggéey di ak McDonald nag ñu ne la yow yaay fay courant wala yaay fay ndox loolu mooy sa participation nga commencé mënal sa bopp boo amee dix ans dix huit ans nga demal sa bopp ut sa appartement ba et cetera mais ñu suñu problème nga nekk si biir kër c'est-à-dire amoo ci benn apport indiwoo dara s biir kër gi benn nit la du mën dara. parce que moo tax nit ñu bëri di liggéey Sénégal ñu am retraite ñu am épargne parce que doo ko mën saa ñu la war a dimbale duñ la dimbale benn nit mooy def lépp loolu nag daf ñu topp ci lépp ba ci politique bi moo tax ma bëgg a wax ak yéen ngeen may ma foofu tuuti parce que problème ñun bu ñu am mooy koñ bi sax pour mu defaru il faut keneen moo ko war a def dégg nga ma politique bi ñu dugg nii aussi loolu moo ci xew da ngay gis benn leader politique moom la xaar ci lépp moo ko war a def mooy financé parti bi mooy luy sees yi mooy joxe paas yi mooy jënd piis yi mooy joxe kab yeeg yére yi ñu war a liggéey moo leen di fay mais loolu mënul defal euh, parti politique mënul defal réew man loolu duma ko defal kenn ci kaw réew mi fii dama ne ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ànd liggéey ak ñi nga xam ne gëm nañ projet bi nga xam te ni idéologie bi ak vision bi ñu indi pour suñu réew te man xam naa ne vision bi ñu indil suñu réew buñ ko defee réew mi soppeeku parce que li ma wax ci tele bi ñëpp dégg ko dafa leer nañ dama ko étudier neuf ans douze ans dix ans di ko tester si sama réew xam ne lii ma war a defar réew mi ma proposé ko léegi nag loolu bu fekkee ñun dañ ko gëm ñëppay teg caution bi par exemple dama leen waxoon ñi ma àndal ñëpp ne man duma ko joxe man kese mënoon naa ko joxe trente millions alhamdulilah yàlla may na ma lu ma ko defee mais je refuse duma ko def dama ne la ñoom ñëpp nañ teg kenn ku nekk na participer. ku amul 1000 francs nga joxe fukk dërëm ku amul fukki dërëm nga joxe ñaar dërëm boo ko amul nga dem volontaire yi ci mbedd mi on a des centaines de jeunes ñi ngi ci mbedd mi di volontaire pour projet bi mën a dox ñoon dañ leen war a jox lekk dañ war a jox naan dañ jox transport dañ war a dimbale te ñi nga xam ne mënuñu ñëw dañoo war a participer te maa ngi ci gërëm diaspora bi ñoom ñu ci bëri ñu ngi commencé di participer ñu ngi joxe seen xaalis ñu nekk ci réew mi aussi même chose levé nañ ba levé presque quinze millions et dama leen nag doyul quoi man danaa teg ñëpp teg mais mardi caution bi dafa war a mat ñu yóbbu ko ñëpp am bokk ci bu mardi nag pour caution bi bu matul man damay def live mardi ci guddi wax ak sénégalais yi wax leen ne maa ci duggoon génn naa ci man maa ci duggoon gëm ne wuy nat mi la ñun ñëpp la mais comme dañu yaakaar ne man damay ñëw pour jox nit ñi xaalis pour ñu voteel ma loolu duma ko defal nit ci kaw suuf génn naa ci ba mu set wecc laay wax mardi continuer suma liggéey samay tool impact bi ma amoon ci formation jigéen ñi xale yi ma def ko continuer sama àll ba ma nekkoon di liggéey su ma paree jël avion dem bitim réew liggéey lu ma am ñëw bokk kook suma réew loolu man doy na ma sëkk mais mënuma exposé wu exposé sama njaboot yàq suma liggéey mënatuma tukki liggéey presque tool yi li ma ci demati bëreetul di ko boole ak jox nit ñi xaalis du ma ko def man du ma fay nit pour dimbale ko mënul nekk quoi c'est-à-dire li moo tax politiciens yu bari dañ leen di pousser sax ñuy jël lu mënul di ko joxe parce que ñun aussi il faut ñu waxante dëgg saa à que ñun dañu bokk ci problème mu problème Sénégal bi du politiciens yi kese ah. ndax politiciens yi da nga koy fal ba pare yow loo am ci problème ñoo teg ko ko pour mu jox la hmm? man waxoon naa leen bi may ubbi sama événement bi ñu bëri ay kabak yu ma leen du ma jox kenn dara dañ kabisa dañ koy jaay ku amul paas bul ñëw parce que problème bi mooy bu ñu deful noonu réew mi du soppeeku ëllëg da ngay jël réew mi nga jal xaalis bi ñu war a tabaxee école yi bi war a tabaxee mbedd yi ñu war a tabaxee hôpital yi yi ñu war a tabaxee lu dimbale réew mi ci mbay mi nga koy jël di ko jox ay nit man genre politique boobu taxul ma dugg ci politique ndax ñu bari dañ nekk ci politique parce que privilège yi moo tax ak tukki ak am alal yàlla dimbaleen ñu am tur man loolu taxuma jóg c'est pour servir mon pays te loolu nag man rek mënuma ko ñun ñëpp ñoo ko war a defandoo su fekkee ku la ñu la mënta tegal ñëpp participer ñun ñëpp ñu teg 30 millions kooku du la jàppale nga tabax réew nañu dëgg voilà loolu la quoi c'est-à-dire que loolu moo ñu dal ci maire yi moo ñu dal ci ci présidence bi moo ñu dal ci euh, ministres yi et cetera kuñ fal nit ñi commencé jóg di la laaj xaalis guddeeg bëccëg loo am jox leen ko toog loo amul sax danga koy mën a jëlee ci caisse état bi di ko jox nit ñi te man loolu kenn du ma si dugal dama liggéey jóge ci dara à partir de rien di tout ba toll fi ma toll du ma jël li ma liggéey ba pare comprendre nga mën naa ci teg mais du ko jox nit ñi pour ñu votal ma pour ay position loolu soxlawu ma pour faire quoi pour être président être président mooy lan mën nga dimbale sa réew toog na président donc loolu dama bëgg ñu wax mu leer mu commencé ci kër yi dama dama dem Rufisque loolu laa fa fekk c'est-à-dire booy dañ ma recevoir bi moo njëkkee ñëw démb egsi fa ñu nekkul ci nawet mais dëkk salte ba pare bëri ndox ma ne mais yéen seen quartier bi ñu ne ñuy xaar état bi ma ne man lu ngeen di xaar état sa buntu kër mën nga ko nettoyer doo xaar état ay xale yu ndaw bu ngeen xëyee benn samedi sax buntu kër bi ñu nettoyer ko defar ko mais loolu lan nga ci xare ta man sama buntu kër noonu laa ko def bi ma ñëwee fekk muy taa dama ko def dem oo waa koñ bi yëpp ku nekk teg li ci des ma teg ko oo booy jël sama sot sol ko mu ngi ci YouTube bi ñu def fi mbedd def fi ay pierre moom rafet def fi ay garab ku fi ku fi jaar mën a am tuuti mbégte sax mais lu ñëwoo ma ñu jot cest problème bi ñu am mooy participation suñu réew duñu laajte mucc suñu lu ñu war a defal suñu réew dañuy laajte devoir bu ñu war a am lan lañu suñu réew war a defal toujours da koy gis sax suñu milliardaires yi da ngay dem Almadies dëkk yu cher yoo xam ne la defar ay milliards mais buntu kër gi sax duñ ko nar a defar duñ ko bëgg sax mais tey Almadies boo fa demoon dëkk yu bëri nga xam ne riche ñoo fa nekk kenn ku nekk bu defoon ni ma def seen bus te kenn ku nekk un million année bi ñu defar mbedd ya fa nekk yëpp su ko defee nit ñi mën a rêver sax dëkk dëkk bu confortable mais sénégalais ñun dañ dul participer ci liñ gëm gëm ne lépp état moo ko war a def wala politicien te loolu dëgg il faut voilà réew boo ko bëggal tabax ñëpp war a participer kër gi bu waree dem ñëpp ci war a participer koñ bi war a dem ñëpp ci war a participer ah amul awma liggéey non boo amul liggéey nga net waaye ci gàlle bi hmm? ah awma moyen boo amul moyen nga dem jëndi xorom xorom kay xanaa ñëpp mën nañ ko boo mën nga def apprenti maçon wala quelque chose nga participer mais dañuy toog nekk ci internet bi di saaga nit ñi guddeeg bëccëg di di cash mais yow ci ba ñu ngay cash yow mënoo si dara c'est-à-dire dara ci kër gi war nga wala suukar sax mënuloo ko indi si biir gàlle bi loolu dañ ko war parti politique yi nag c'est la même chose pour ñu def rupture pour réew mi parti politique yi dañ ko war a soppi ni ñu koy soppee mooy ñëpp war a teg benn nit warul tegal kenn dara bu ko defee bu ngeen di gouverner ñëpp mën a participer mais boo commencé ci campagne di jox nit ñi xaalis ëllëg boo toogee ci loolu ngay nekk li ñu war a dundee ngay jox nit ñi loolu laa leen bëggoon a wax mardi maa leen jox rendez-vous mardi ci guddi danaa def live wax leen ne nit ñi teg nañ am na ñu teg ñu bari macha allah maa leen ci gërëm si 15 millions quelque lañ tegal 30 millions yi bu matul mardi man danaa def laay wax leen ne coon man maa ci bëggoon dugg génn naa ci politique bi du ma si dugg kon ne suma liggéey bàyyi leen ak politiciens yi fi nekk yi ñu ñu jëlaat réew mi kon ne seen liggéey man ma kon ne suma réew parce que du liggéey ba heure bi di ko yàq ci ay politique du ko def maa leen di gërëm di leen di leen di leen di leen di leen ziare bu baax dama bëgg aussi suñu ànd mu nekk si ànd dëgg voilà parce que erreur yi ñu bari def fii man du ko nangoo def parce que yow du ma du ma ngaa ko buy doog egsi fii ci biir réew mi il faut que ñun ñëpp li ñuy war a defal suñu réew mu jaral ñu ko ñun ñëpp doomu Sénégal bu ñu ko jaral nag ñu bàyyi réew mu mu mel nii rek ah you know what I'm saying <laughs> man I'm not gonna sacrifice myself like that you know what donc loolu laa bëggoon a wax ak ñëpp maa leen di gërëm di leen sant wasalaam ñu yennu jàmm God bless thank you